moo tax bi muy jàng moom sëriñ bi. Hmm? histoire géo la def histoire géographie la def. waaye li ma daan jàng. waaye li mu doon jàng. at mu jot su école tëjee. jàng ak ci perse. yooyu mu doon jàng ci turquie ak perse ak grec. ak grec yi ak grec yi. dëkk yooyu dem su ma demee université seet. dëkk yooyu la doon dem gannaaw bi mu ko jàngee dem pratique ko dem seet seen dëkk yi naka la demee. mu ne war na ci dëkk Alger yi lu mat 30 pays. ci ci ci Europe yi tamit mën na. ci Europe yi tamit mën na 30 pays yoo xam ne teg na fa tànkam. mais pays arabe yi. ñetti pays rekk ci demul. ñetti pays la demul ci pays arabe yi. muy Soudan muy ak Oman ak Oman. waaye li ci des yëpp. dem na ci dem na ci. te yi oto laa demee. te ci dem yëpp yëpp oto la demee. Allemagne la njëkk a dawalee mu ne Allemagne la njëkk a oto boppam. dama daan ñëw amoon carte d'identité Genève. dafa amoon carte d'identité yu étudiante yi international. dafa am hôtel yoo xam ne mooy cher. dafa am hôtel yoo xam ne mooy cher la. waaye yow yaay def sa sa bopp. waaye say service nag yaa koy defal sa bopp. loolu su demee. su demee. lu mel ni Allemagne. lu mel ni Allemagne. nga jënd oto li ngay tukkee nga jëndee ko lu ngay tukkee yëpp nga jëndee ko oto. place place jeunesse boobu. ci place su jeunesse yooyu. ngay bind sa soxla ne damay dem dëkk sangam dëkk sangam dëkk sangam. ngay bind sa soxla ne damaa bëgg a dem dëkk sangam dëkk sangam dëkk sangam. ku bëgg ñu ñëw participer. ku bëgg ñëw participer. ci condition yow nga doon chauffeur ñuy ñuy awante. ci condition yow nga doon chauffeur bi yaa moom oto bi waaye ñuy ayalante. ñu après ñu ñu ñu su boobaa ñuy partager essence bi nag suñ biir cotiser jënd ko. loolu ci la daan dem. loolu ci la daan dem moom sëriñ bi. bind ko ci kii ci ci ci seen bureau su ko demee def ko bind ko ci seen bureau ba. tey mu am ñaar suba mu am tey mu am ñaari client suba mu am ñett. bañ mat nombre. bañ mat nombre ak oto bi. ñu dem ñu dee départ. ci oto boobu nag yoon tukki yooyu. ci la daan demee di gis. ci tukki yooyu. daan liggéey ci la doon dem di gis. mu benn waay boo xam ne sax. amoon benn waay boo xam ne sax. dañ ne ma ñaari français la ak ñaari japonais. dañ ne ko ñaari français la ak ñaari ak benn allemand. ak benn allemand. ñuy dem ba ci kanam mu ubbi coffre oto bi. ñu dem ba ci kanam kooku ubbi coffre oto bi. gis mu def téere boo xam ne téere arab la. mu def téere boo xam ne téere arab la. mu ne dégg ku dégg fii arab. mu ne ku dégg fii arab. mu ne ko man ne ko mu ne ko moom moom sëriñ bi. mu ne ko kon yow dégg nga arab. mu ne ko loolu laa jàng. mu ne ko loolu laa jàng. mu ne man waa Tunis laa. mu ne ko man waa Tunis laa. ñuy waxtaan ñuy waxtaan ñoom ñaar. fuñ dem fuñ dem. dañuy mu ne mu ne ma noo gisee beeri almaañ bi. mu ne ko noo defee noo def noo gisee beeru almaañ bi. mu ne ko su ma la ndax su ma la waxee da nga gëm yow. li ñuy wax sàngara. ak mbooleem xeetam yi. mu ne moom sëriñ bi xamut kaane lay saf xamut sukar lay saf. dëkk bu dem dëkk bu dem. loolu la def kéemtaan moom loolu la def kéemtaan ngir ne lu tax sëriñ bi duy naan loola. ne gis ngeen kii ne gis ngeen kii. jànq la ci sàngara jànq ci sàngara. mënta naan sàngara <laughs> te lu moom waa Tunis la loolu daf koo puus motiver ko lu bëri bi mu nekk Égypte dafa jëloon kër gum luye waaye ay catholique ñoo ko moom waaye ay catholique ñoo ko moomoon doomi góor gi nag doomi góor gi nag ñuy waxtaan ñuy waxtaan mu ne ma yow luy sa diina mu ne ko yow lan mooy sa diina mu ne ko man amaguma diina soo jàngee ba pare. mu ne ñun suñ jàngee ba pare. dañ lay may occasion nga tànn seet ci diine yi yi la doon jàngal ban moo ci gën. loolu dafay dafay tax du ma ragal. mu ne loolu day tax du ragal ndax moo ko tànnal boppam. mu di ma jëwal mu di ko jëwal nag. soo demee ci prison ba. naan ko soo demee ci prison ba. jullit ñaa fa ëpp. soo demee ca baar ba. jullit ñaa fa ëpp. li muy wax nii. waaye léegoo léeg sëriñ bi laaj ko benn question. mu ne ko man nag. man nag dama koo judduwaale ci christianisme rek waaye foruma ci. indil ko benn téere. mu ne ko téere bi daf maa gën a réeral waaye xamewul ma ci dara. mu ne ko Isa ndax doomu yàlla la. ndax yàlla ni mu xamee doole te moom moom àddina bi moo bind àddina bi. njaboot moom mu xañ boppam ba des benn. mu may ñëpp ay njabooti fukki dooma ak juróomi doom moom muy xam benn doom. ba pare mu sàggan ba jaamam yi rey mu sàggan moom yàlla moomu jur doom jooju ba sàggan ba ba jaamam yi ko moom yàlla. mu ne ko déedéet. yàlla dafa meroon. yàlla dafa meroon. dafa bëggoon a faagaagal. ñëpp. Jésus. daal di volontaire moom. daal di volontaire moom. joxe ba kanam bakkanam. moo tax moom moo jot moo tax moom Jésus moom la ñu rey mu jot nit ñi. ndax moo tax mu jore caabi àjjana ku dugg àjjana rek Jésus moo la dugal àjjana moom sëriñ bi mu di ko laaj bu mujj gi moom mu doyal ca question yi yóbbu ko ci pape bi mu utal ko rendez-vous ci pape bi moom pape bi ne ko lan mooy sa diina moom sëriñ bi mu ne ko amaguma diina nag damay tànn rek bu ci bu ci gën a doy ma dugg ci mu ne ko kon tànnal la diina jii ma ne moom sëriñ bi mu ne ko déedéet yow moom lu ma loo tànnalee ndax maa ngi looy doog a gis ndax sa wax rek mun doyut ma da nga may convaincre kay wax ma lu dugg sama bopp bi ma doog a jébbalu mu ne ko alquran julli ñi di wax nii ñoom sax nangu nañ ne saa doomu yàlla la. mu ne ko ndax xam nga moom pape bi questionné sëriñ bi ne ko ndax xam nga dara ci lislaam mu ne ko may faraatu ci kii bi rek waaye maa ngi faraatu ci lislaam yi tamit mu ne ko ndax jàng nga saar wi ñuy wax suuratul Maryam mu ne ko waaw mu ne ko commencé mu ne ko commencé mu ne ko inni Abdullahi. mu ne inni Abdullahi. mu ne yam kii. innama almasihu isa bnu mariam. innama almasihu isa bnu mariam. mu ne mu ne mu ne Jésu doomi mariam. mu ne Jésu daal du doomi yàlla doomi mariam la loolu alxuraan wax. waaw mu ne mu ne alxuraan moo xam mu ne. wa kalimatuhu waaye kàddoom la. mu ne waaye alxuraan teg ci ne. wa kalimatuhu moom nag kàddoom la moom Isa. alqaaha ila maryam alqaaha ila maryam mu ne ko taxawal foofu mu ne ki wax kàddu ak kim ko wax mu ne ki wax kàddu ak kim ko wax noo koy tàgg noo koy noo koy farfancee kon foofu yàlla feeñal na foofu ne moo jur Isa moom pap bi ne ko kon yàlla feeñal na foofu ne moo jur Isa may discuter ak moom moom sëriñ bi muy discuter ak moom mu ne mën ngaa continuer mu ne ko mën ngaa continuer mu ne ko waaw mu ne lu ci topp mu ne ko wa ruuxun minhum mu ne mu ko ruux minhum mi ruuxu gu jógee ci mu ne ruuxu gu jógee ci yàlla la jëm ci ruuxu mu Mariam. suñ doom yi suñu ruux yu jógee ci ñun mu ne ko ñun suñu suñ doom yi ruux yu jógee ci ñun la. yooyu daal di ma ko wax. moom daal ñu nekk ci di ci waxante waxante. ko wax moom ba mu ne ko yow daal. dafa mel ni. dafa mel ni. yaa ngi gëstu. yaa ngi gëstu. waaye ci kii sa sa waaye sa farandoor daal lislaam la. mooy lislaam waaye nag. suñu yàggee waxtaan la nga dégg yëf suñu yàggee waxtaan nag danaa la convaincre ndax da nga dégg yëf yi. mu invité ma ci benn mariage. mu invité ko ci benn mariage. mu ñëw mu ñëw. dama tardé fekk ñu toog. dafa tardé fekk ñoom ñu toog. caméra yaa ngi tàkk. caméra ngi tàkk. kii kii jabar ji ak jëkkër ji ngi taxaw. jabar ji ñuy maye ak jëkkër ji ñu ngi taxaw. mu ñëw fekk fi mu ñëw fekk moom sëriñ bi fi ñu ko réservé mu toog. mu dégg ñëw ñuy wax naan. mu dégg ñu koy jëw naan. daf koo fàtte. daf koo fàtte. ñu ne ko déedéet ko nañ ko wax rek. ñu ne ko déedéet nañ ko wax rek. kenn ki daal ñëw ne ma s'il vous kenn ko ñëw ne ko s'il vous plaît. mu ne ko lan la. mu ne ko lan la. mu ne ko da mu ne mbaxana. mu ne ko da fàtte simmi sa mbaxana mi. mu ne ko ah fii dañ fi aaye mbaxana. mu ne ko fii dañ fi aaye sol mbaxana. mu ne ko waaw. mu ne ko waaw. amu leen ci droit. mu ne ko amu leen ci droit. seen sajjaada yi ma dëgg ak sama dàll yi bi ma jógee ci mbedd mi moom ngeen a ay waaye lii sama dàll yi ma dëgg ak seen sajjaada yi nag bi ma jógee ci mbedd mi ak sama dàll yi moom ngeen ma waroon a aaye na waaye du seen baxana yi waaye ngeen may aaye li nga xam ne man kenn rek maa ko yenu mu ne ko yow yow waxal daal yow ne yow jullit nga sëriñ bi daal di wax foofu am audace wax ne ashhadu laa ilaha illa wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ndeke boobu lañ ko gën a respecté nag mu jaaree ci nag di jënd seen téere yi xalifa bi Cheikh Ahmed Tidiane yal na yàlla yokk leeram mu ñëw Égypte ñëw fekk si leen ci seen kër di leen ziyaara si ñëw fekk bopp lalam bi téere yu bëri ngi ci injiil yohan ak markus ak luqa téere yëpp a ngi ci tege ci bopp lalam bi moom Cheikh Ahmed Tidiane al Khalifa ñëw ba nanguut a toog sax ne ko yow Macky ci lii nga ne yaakaar yi bàyyi am ci yow amoo dara lu may jàng téere gaay yi mu ne ko déedéet Cheikh Tidiane yëf yi demeewut noonu mu ne mas naa dégg waxtaan boo xam ne Cheikh Tidiane al Maktoum yan na yàlla yokk leeram yaa rabbi kaata kuy julli bokk ci mu ne soo bëggee kaata kuy julli fa ngay bokk ci sàppe si ndaw dëgg mu ne ko ñii mu ne ko ñii man xam na toog naa ak ñoom toogaay yu bëri man toog naa ak ñoom toogaay yu bëri dañuy jàng alquran dañuy jàng alquran xam saar bi fi mu nekk xam saar fi mu ne xam sax eh, kii eh, xam laaye ji xam laaye fu mu ne yow nga ñoom ñu xam sa téere ngir xeex ak yow yow pare pour xam seen téere ngir jàkkaarloog ñoom su ñuy weranteeg yow. ci sa téere lañ lay daanee. mu ne ñu toog gannaaw ñetti fan. mu ne ko man Cheikh Tidiane ñetti fan yëpp nelawuma ndax li ma doon wax daal ci laa doon xalaat. jox ko xaalis bu bari jox ko sëriñ bi. ne ko demal nga jëndal ma téere yi wax ci yii yëpp. mu ne boobu mu ngi amee injiil buñ bind ci arab suñ waxee dara rek moom mën na leen a weddi na loolu nekkut ci biibul bi ba ba tax na nam doon gëstoo affaire yi diine yooyu dimbale na ko fii ci Sénégal bi mu ñibbisee lu bari ci gàmm yi muy def ci gàmm yi muy def ndax Baay radiyallahu anhu da leen waxoon ne su ngeen jàngee ba ñëw su ngeen ñëwee ma jàngal leen mu ne surtout màkki nag yow li nga bëgg a wax ci olof sax mënoo koo wax te moom nga nàmp déggoo olof waaye bi mu ñëwee ci waxu baay bi mu ñëwee ci waxu baay yi moo ko doon jàngal ci la jàngee olof yi waaye li ñuy wax ci siira waaye li ñuy wax nag ci siira yonent bi moom def cee mokk koo mokkal naka jekk moo tax suy gàmm nag du préparé dara day dem rek toog wax li mu bëgg a wax cey kon nag loolu dafay wane ne nit ki lim am su ko xamut mën na koo mën na koo xeeb. su ko xamut mën na koo xeeb. waaye am nañ fii ci Sénégal. waaye am nañ fii ci Sénégal. ay valeurs yoo xam ne. ay valeurs yoo xam ne. amatul fenn ci àddina fenn ci àddina bi lu dul Sénégal. soo demee ci frontière Gambie bii rek. wala maali gii rek. nga xam ne yàlla lim may Sénégal mayut ko kenn. loolu nag. jeunesse bi ñoo koy ñoo jeunesse bi ñoo ko moom ndax réew maa ngi nii am ay soppeeku yooyu yëpp déggin yu bees la te jël ci la ñuy jaaree ba am liberté suñ bopp waaye xeex ba jot sa bopp te xamoo foo jëm waaye xeex ba jot sa bopp te xamoo foo jëm mu ne loolu day indi gàllankoor ak réer ñun nañ seet te jàpp ci liñ moom te gëm liñ moom gëm suñ bopp nit ku weex gënut nit ku ñuul. loolu yonent bi sallallahu alayhi wa moo ko wax. mu ne gënante nekkut ci diggante arab ak ajam. mu ne gënante mi ngi ci ñu doon ci topp yàlla. mu ne gënante daal mu ngi ci ki gën a ragal yàlla ak ki gën a topp yàlla. yàlla nag daf leen a def ay xeet yu uute. yàlla nag daf leen a def ay xeet yu uute. pour ngeen xamante. pour ngeen xamante. su ngeen xamante da ngeen mën a jëflante. mu ngi jéggalu ci guddal bi ndax lii lu tuuti la rek loo xam ne dañuy gërëm dañuy gërëm seen mbokk ci yàlla mbokki taalibe Cheikh Aliou Badara mi nga xam ne dafay dafay jéem dafay jéem di gëstu ci diina di gëstu ci diina ji li nga nekk da ko war a li nga nekk da ko war a gëstu ngir xam ko am na benn bis. am na benn bés. muy waxtaan ci Dakar. muy waxtaan ci Dakar. mu ne leen. nit ku nekk lim nekk daf ko war a gëm. nit ku nekk lam ne fa ko war a gëm. ñi nga xam ne bëgg nañ reggae bëgg nañ bëgg Bob ñi nga xam ne bëgg nañ reggae bëgg Bob Marley. nga xam ne ñu bëgg nañ bëgg eh, ñi nga xam ne bëgg nañ Michael Jackson. waaw ñooñu ñëpp ku nekk. ñoo ñu ñëpp ku ne. yaa ngi koy roy. yaa ngi koy roy. ñii di ko defee ci ay rasta. ñii ñii di ko roy ci ay eh, di ko roy ci ay yëngatu. ñii di koy roy ci ay yëngatu. kon nag ñu itam. kon nag ñu itamit. su fekkee ne Mawlana Cheikh Ibrahim. su fekkee ne Mawlana Cheikh Ibrahim. suñ gidd la te gëm nañ ko. suñ gëm nañ ko. am nañ droit roy am nañ droit roy bàyyi ci anam yëpp. mën nañoo solo solo bàyyi. mën nañoo te eh, téye xeet comme xeetu baay wi waaye nag du tax ñu def bàyyi nawle te du nawle suñ suñ doon naw suñ nawle ndax bàyyi suñu rawee sax ci moom la ñuy royee ci moo kon nag nit ku nekk na nga feeñ ci la nga nekk nit ku ne na nga feeñ ca la nga bu ci complexe kon nag danañ àgg fi ñu jëm su boobaa ñu ngi gërëm ñëpp